ndaxte ku ñu yàpp ba élection jotee ñu wàcce la niñ la falee woon kon dama ni askan wi euh, le 24 bi passé mars askanu Sénégal yéen a dugg ci mbenn gi ak ci à 54 pour cent dañuy voté ak ñi nga xam ni sax voté wuñu te dañ leen xañ ñu voté dinañ ci ñëw parce que am na ay primo votants yoo xam ne ba léegi amuñu carte d'identité ñu tere leen voté mais dans majoritairement askanu Sénégal moom moo indi changement yéen a jël li ngeen joxoon le président Macky Sall jox ko le président Bassirou Diomaye Faye fal ko porter le projet à la tête de ce pays jàpp naa ni ku nekk Sénégalais war ngaa mën a respecter choix boobu waaye dañu dégg ay nit ñu commencé di rëppi rëppi commencé di xataraayu commencé fàtte ñoom ni ñun dañuy waxal ñun gàddaayuñu ñun gàddaayuñu dañ doon noppalu mais ñu ngi réew mi ba tey ñun ñu leen dóor ku kaw ñun ñu leen fekk ci seen ay building wàccee leen fekk leen ci seen poste donkaas yi génnee leen ñun ñu leen fekk seen i poste de responsabilité yi nga xam ne ñun ñoo taxoon ngeen am ko ndombal tànk yoo xam ne ñun ñoo tax ngeen am ko ñun askan wi ñoo taxoon ngeen am ko ngeen jël ci dañu ci dóor dañu ci piétiner dañu ci tëj dañu ci rey dañu ci gaañ di ci ànd ak di ci ànd ak euh, vulgarité bew ci fuuy ci di ci wax ak ñun ak gëdd tere ñu wax tere ñu dox tere ñu tukki tere ñu dem tere ñu ñëw ñun ñooñu ñoo jël sunu majorité fal le président Bassirou Diomaye Faye maa ngi dégg ñoo xam ni dañu ne dañuy mokkeewu ma yaakaar ni booy mokew da ngay jëkk xool sa bopp am na ñoo xam ni nag man duma leen tontu parce que am na xale yoo xam ni sama njaboot gii tey doy ngeen ci tontu le ndax yéen a ngeen koy defanteeg ñoom ba mu normal mais dama ni bu weesoo loolu dañu gis ay cadre APR APR APR à leur tête le président Macky Sall ci boppam nee naay daa jóge ci réew mi un mois après naan day woote mobilisation dama ni président Macky Sall moom ku muy ak ku mu xanaa du ñun askan wi ko fi jëlee barki démb nga xam ne ba muy dem sax tàggoowul pare la jóge daw génn dëkk bi mu bëggoon lu ko mobiliser day toog su fekkonte ne li muy wax ñeme na ko du dem ndaxte moom nag lim fi defagum dafa nit ñaan kenn du ko kenn dootu ko kenn du reer ba faw ndax président Macky Sall mooy le sel président bi nga xam ne moo gën a nekk ndaw Abdoulaye Wade def ko fi Abdou Diouf def ko fi bu jógee ci réewam dem di liggéeyal beneen réew dans la semaine sans attendre dëgg la chef d'état yi bu ñu wàccee dañ leen mën nañ leen di leen jox ay poste sur le plan international mais dinañ xaar battement dinañ xaar tuuti dinañu delloo njukkal seen réew di dinañ delloo njukkal seen askan parce que nag bu déggee président yàlla ak Sénégal moom moo tax bu déggee monsieur le président yàlla ak Sénégal moom moo tax kon ñun ba faw munu dindi loolu ak lépp lum ñu mën a def ci lu bon nag fu mu dem ci àdduna bi kenn du ko wooyee Macky Sall monsieur le président de la république du Sénégal Macky Sall lañ koy woowee même buñ ci tegee ex wala l'ancien kon ñun ba faw laa ne li mu doon tey ci àdduna bi titre bi mu doon tey di ko ndamoo ñun la peuple sénégalais ñoo ko ko jox kon am na respect bu mu war a am ci ñun respect bu mu war a am ci ñun mooy déjà le respect de rendre compte waaw rendre compte des explications il nous les doit des excuses il nous en doit leeral ndaxte Sénégal fi mu toll moo ko fi indi sunu réew mi nag président yi dañuy def bu ñu ñëwee dañuy wax lu ñu bëgg mais bu ñuy dem duñ def bilan on avait droit à un bilan ndaxte ci bilan boobu moom la ñuy fay ba tey ay bor ci bilan boobu bis bu yàlla sàkk li ñuy dund ci marché bi bilan boobu moom moo ñu ko toppee mais au lieu de ça mu takk ay bagaasam tàgguwul sax ay mbokkam waaye bu ko ay mbokkam merewul ba tax na mu génn par la petite porte dem tey muy woote waat ci ay meeting naan day mu remobiliser ma ne bienvenue ñu ngi lay xaar ndax yow président mag Sall ñun xaw ma kan de mais ñun cette jeunesse là ñun amuñu complexe ci yow parce que ñun dañ la fal folli la xanaa kon ñun ñoo mën dañ la fal folli la tey nag ñu fal ñoo xam ne ñun ñoom la ñu ci mu leen di neex ak ci mu leen di naqari niñ doon waxee ngeen naan ñu. moom la président Macky Sall moom la yàlla fal kon dama ne le président Bassirou Diomaye Faye moom la yàlla fal loolu tamit lu ngeen di supporter lay doon gis nañu nag façon opposition bi waa APR bëgg a wu ñu leen di ma leen di laaj man ak yéen bëgg ñu avertir waa APR pour di leen laaj est-ce que dëgg-dëgg ñoom ñeme nañu yoon bi ñu bëgg a jàll ni est-ce que ñeme ngeen yoon bi xalaat leen ko bu baax gis nañ leen fan yi ngeen mel ne ay béyu rëcc ku nekk àbbat làmmiñ di wax ku ci nekk di jóg tiktok bi nag moom jël ngeen ko xam naa ni ñemeegu leen facebook yéen a ngi ñëw mais bienvenue ubbi leen compte yi te bu mu nekk ay foo compte nag nga doon ay vrai compte di ngeen di wax ñeme leen ko di ngeen di def tamit engagé wu leen ci parce que nag ñun dañoo opposé wu douze ans il faut ngeen il ngeen ñeme il faut ngeen ñeme bu leen dem di làqatu ci biir euh, TikTok yi di def ay live di wàccee non non les leaders là leader APR yi bu leen jël ay booy yoo xamante ne da ngeen leen di sacrifier jox leen ay dossier ñuy xëy suba ba ngoon di lire topp ci dossier naan nii li ñuy lire kenn xamu ko ñoom sax xamuñu ko te leen seen responsabilité parce que ñun bi ñuy opposé wu ñun ñoo ñëw opposé wu ak yéen à commencer par le premier ministre Ousmane Sonko moom ci jëmm boppam moo doon taxaw di wax opposition bi ñun kenn ku nekk suñu visage découvert la doon opposé wu ak yéen kon acca leen naraay jub naraay jub il faut une opposition ñeme leen ndax bu ngeen ñëwee opposé wu au moins vous nous ferez le bilan vous nous ferez le bilan du foncier di ngeen ñu wax suñu suuf si ngeen jël tong-tongee ko naa foncier séddoo ko ci seen biir di ngeen ñu wax fan ngeen ko teg di ngeen ñu wax lan ngeen ñu yabee di ngeen ñu wax lan ngeen yàbbee askanu Sénégal ba yéen seeni maam maam moomuñu réew mi ngeen bokk ak nit ñi ngeen di séddoo suñuy suuf ku ne di jëlee hectare ñëw leen ngeen opposé wu ngeen wax ñu fan ngeen teg loolu foofu lañ leen di xaar di ngeen ñu wax itam lu ngeen def ci BRT bi wax ñu lu ngeen def ci TER bi dangeen ngeen foog ni jeex na jeexagul di ngeen ñu wax lan ngeen def ci emploi yi di ngeen ñu wax lan ngeen def ci licence de pêche yi. di ngeen ñu wax lan ngeen def ci hydrocarbures def ko ci ressource minière def ko ci leneen ak leneen da ngeen ñuy wax lépp en vous opposant bien sûr mais dañ leen di laaj luy seen bilan ngeen wax parce que nag damaa dégg fan yi ay nit ñu yor nguur vingt quatre ans parce que nag yéen nekku leen woon ci nguur gi douze ans de yéen vingt quatre ans ngeen def ci nguur gi parce que temps Abdoulaye Wade ba léegi yéen a ngi fi douze ans plus douze ans muy vingt quatre ans vingt quatre ans ngeen def ko ci réew mi wàññiwu leen courant wàññiwu leen ndox yàpp cher na jën cher na ceeb cher na dund bi cher na liggéey amul ñun ñu toog ci nguur gi weer ngeen dugg ñoo fat ku jóg naan nañ wax ci ci dund bi nañ wax ci cher bi li taxul ñu fal leen mais yéen est-ce que ça va yéen est-ce que ça va vingt quatre ans ngeen nguuru ko yéen les libéraux APR ak ñi ngeen àndal parce que ñu bëri fekk si nañ leen même ñi ngeen ñeneen doon xeex dañoo mujjee transhumé ñoo fekk si leen ñun nag boobu ba léegi ñuy opposé wu te dama ni na ngeen ko ñeme nag parce que yéen mënoon ngeen toog ci seen tranquille jël seen cool bàyyi ñun ñu def suñu ay audit def suñu ay enquête teg suñu déclaration de politique générale ne leen fii leen jëm ngeen def sax yooyu ñuy wax noonu affaire civilisé yooyu ay cent jours francs ngeen mayee ko trois mois ndaxte dafa teel nag dafa teel noonu ngeen maye trois mois parce que opposition bu noble bi fi nekk opposition bi nga xamante ne ñoom ñu ngi woon ci opposition bi te ñooñu nag ñooy suñ ñoo war a nekk l'opposition ñooñu kenn déggu leen ñooñu ils ont aucun compte à rendre ñoom defuñu ñooñu takkoon dem xeexi ñëw taxaw ñooñu ñu ngi toog ñoom civilisé kenn ku nekk ci ñoom civilisé di xaar mais yéen ñi nga xam ni vous êtes comptable ngeen war ñëw jox ñu ay réponse yéenay bëgg taxaw di réppi réppi ci seen kanam dañuy laaj ay solution damay laaj <laughs> dañuy laaj yéen est-ce que ça parce que yéen ku nekk waroon naa mën a demander yéen ay résultats ba mu des yéen parce que yéen dañ leen duma da ngeen a war a faxasu dem waajalaat seen bopp dem pare pare waat loolu mooy seen rôle mais c'est pas venir di tympaniser sénégalais yi naan da ngeen di bëgg parce que na ngeen foog ni affaire bi euh, gatsa gatsa ak i wax moom moo koy joxe ah dafa metti woon ci yéen ah duma yi dafa safoon en wax ji ni seen njiit waxee woon dañ leen wax ba wër leen ngeen foog ni ay wax moo ñu fi indi ñun wax kese indi wuñu fi de dëgg mooñu fi indi ak jubal moo ñu fi indi jubbanti moo ñu fi indi waaw sénégalais dañu xool xàmmee ñu gis suñu constance pendant douze ans gis suñu constance pendant toutes ces années gis suñuy proposition gis suñuy loxo yu set gis suñu ñàkk musuñoo sàcc alalu askan bi musuñu leen wax lu amul musuñoo def loo xamante dañu koy xeebee moo tax ñu dénkuñu réew mi bu fekkee da ngeen di foog ni wax ju bare moo tax ak vulgarité moo tax ngeen bëgg ko sooboo noonu dama ni dellu siwaat leen ci li ngeen di xool ngeen xool est-ce que yoon bii ngeen bëgg a jël ñeme ngeen ko ou pas est-ce que ñeme ngeen yoon bi xoolaat leen ko bu baax de parce que ñun on est toujours là <laughs> maa ngi fi sama njaboot gaa ngi fi kenn ci ñun bougé wu sénégalais yi leen ko defoon bàcc leen ko ñu ngi fi toog yéen bu ngeen bëggee sax sénégalais am tuuti fu ñu leen teg da ngeen war a def ndànk. def profil bas mais nag on comprend li nekk ci seen ginnaaw moom ngeen di ragal moo tax ngeen di yuuxu ku ne ci yéen di yuuxu ab rajo yi bu ko defee bu ëllëgee si on vous demande de rendre après nga ne ngeen ne parce que da ngeen di opposé wu mais non yéen loolu du leen ci génnee parce que yéen rapport yii leen épinglé rapport yi yéen a ko def ci seen magistère lañ ko defee yéen a def rapport yi kon yéen seen xataraayu ak seen li leen di tëj mu ngi woon ci seen i tiroir ngeen tëj ko ñun laalaguñu dara ñun yëkkatee guñ ci benn dossier judiciaire benn benn yëkkatee guñ ko fi comprendre nañu nag seen kilifa dafa ragal kaso moo tax mu takk ay bagages am dem laqatu ji derrière le 4P mais loolu du tax mu rëcc dafa ragal kaso moo tax un mois après mun naan remobilisez-vous yow mënoo mobiliser sa parti ba nga nekkee super président de la république tey nga leen di mën a mobiliser tey nga leen di mobiliser ba tey ñu ngi lay xaar ba tey ñu ngi leen di ñu ngi leen di xaar coow li bare na séddoo ngeen suuf aéroport bi séddoo corniche bi yemu leen ci ndekete mbuurkat da ngeen ko séddoo àll bi yëpp ngeen séddoo ba maatam wuro soog gi ndendoori ñëpp a ngi jooy ngeen ne duñ ko càmbar ngeen ne duñ ko auditer ngeen ne duñ ko xool moo tax ngeen bëgg a def association de malfaiteurs taxaw jàkkaarloog ñun ne naay amu leen lu ngeen ñu waxagum lu dul ci ay physique ay prononciation ñun on est fier doomu baykat doomu sénégalais la ñu fal faluñu complexe faluñu wesh wesh faluñu benn benn doomu lobby faluñu kenn koo xamante ne dafay wone nii dafa doon lu mu doonul bu leen nangu ku ñu complexé loo on est qui on est te foofu moo tax ñu egsi fii ñu egsi donc ma bëgg nag askan bi ngeen bañ a permettre loolu parce que dafa am loo xam ni mënuñu euh, sonn lu ñu sonn lépp fukki at ak ñaar fal le régime ñuy càmbar li ci dossier yi di ko xool paree guñu ñi nga xam ni ñoo nekk responsable de li Sénégalais yi di dund te continuer nag di nekk responsable parce que sabotage bi bare na parce que direction yi fi nekk yëpp ñoom ñoo ci nekk secteur yi fi nekk yëpp ba léegi waa APR ñoom ñoo fi nekk kon lu doxul yéen la ba tey parce que kenn changé gu leen complètement kon yéen ngeen def mea culpa xool ne askan wi leen bëggoon dénk leen ay ndombal tànk moom moo doyal ngeen foog ni yéen la ak le président Bassirou Diomaye fay wala yéen la ak Maïmouna Bousso vous n'avez rien compris bu vous n'avez rien compris parce que du yéen ak ñun ñi nekk euh, euh, euh, président Bassirou Diomaye Faye wala ak Maïmouna wala ak keneen yéen avec le peuple sénégalais ngeen amal problème ñoom ngeen doon doxalal ñu ne ni ngeen di doxalee bëgguñu ko ñu changé te keneen da ngeen di respecter seen choix da ngeen di opposé wu kay na tàng na tar déggoo li ma la wax bienvenue mais na ci opposition bi on attend on attend nag seen ay bilan ci bépp fànn nag ba ci bilan social bi li ngeen fi def cinq ans doyul ñu pour làqati ko cinquant ans doyul ñu pour làqati ko bis bu yàlla sàkk rapport bu wàcc man ma sant yàlla ci ñu ma bokkee ñu leen fi jële ngeen nekk fi nag di saboote ak di ruube ak di jaxase ak di yàq mais sénégalais yi nañu toog fi ñu toog te bañ leen fekk si sénégalais yi xam ngeen li tax ngeen changé li tax ngeen changé du xaalis ndax bu doon xaalis la du ngeen ñu fal da ngeen di jël ñi nga xam ne sàcc nañ suñu alal li tax ngeen fal ñu pour ñu jubal la pour ñu jubbanti loolu moo tax ngeen fal ñu jubbanti nag du gaaw yéen xam ngeen loolu bu ngeen buggoon lu gaaw da ngeen di dem encaisser seen milliards yooyu continuer nekk ci li ngeen nekk dañoo bëgg da ngeen bëgg réew mi dellu seen loxo da ngeen bëgg seen suuf yi joxaat leen ko da ngeen bëgg seen i doom am ay industrie am liggéey da ngeen bëgg alalu askan bi ñu def ko ci askan bi te ci yoon boobu la ñu nekk. gis nga nag ñii ñu xeex ba jëlee leen fi damay avertir Sénégalais yi di leen wax ne ba tey ñoo ngi fi ñoo ngi fi ba tey de te ñoom li ñun liñ bëggoon mooy jël Sénégalais teg ko ci a Sénégal teg ko ci loxo Sénégalais te ñoom mosuñu ko bëgg. 1960 ba léegi ñu def seen association di ko bañ loolu lañ bëgg ba tey. di ko bañ kon nag ñun lépp lum ñu jaraloon ci jële leen fii nañu ko jaral pour taxaw ne dong accompagner sunu victoire jusqu'au bout nag parce que dafa teel dafa teel coow li dafa teel bilan yi dafa teel situation yi dafa teel foog naa ne man yaakaaroon naa jàmm ji ñu may président Macky Sall ba muy génn dëkk bi ndax may ko jàmm weesuwul organiser wuñ ko et de la honte ndaxte et de la honte lañ ko waroon lañ ko waroon lalal et de la honte mooy sénégalais yi nga xam ne yëpp daf leen def lu leen metti dañoo waroon a taxaw teewee ñi ñàkk seen i doom ñi ñàkk seen ay mbokk ñi nga xam ñoo ñàkk seen liggéey ñi nga xamante ne ñoo nekk ay victimes ñëpp dañoo waroon nekk ci et de la honte bi gunge ko ba këram mais dañ ko suturaal président Bassirou Diomaye daf ko suturaal ba def lépp ba mu baax ñun ñii sax ba ñu jógee jam ñaajo di ñëw ñu suturaal ko ba ñëpp ba a fekkee génnam ci palais bi kon moom waroon naa mën a suturaal boppam suturaal njabootam bañ a jël benn ndombal tànk di dem FMI di jàkkaarloog askanam ba pare di manipuler di manipuler ay magum jëm ñi nekk ay cadre ñi nekk ay député ngeen di wër di manipuler yéen FMI bu ñu waxulee dañuy continuer PSE bi nga xamante ne moo tax ñu garanti lebal ñu xaalis ñoom lu ñuy wax lan la ñuy wax garanti bi dafa dem ba deux mille vingt kenn waxu leen ni PSE moom mooy continuer déedéet ngeen di wër di manipuler je vois que jël bi waa jëluñu leen dara taxul ngeen changer bu n'avez rien appris wala boog da koo nanguwul parce que yéen a gën a xam ni. FMI li mu wax c'est de la pure logique ndax ñu demuñu fa woon pour laajaat ko xaalis mais c'est normal ñu dem fa parce que c'est un nouveau régime bu fa demee itam c'est normal FMI gannaaw dafa lebale te garantie bi mu leblee garantie boobu mooy PSE bi day dem ba deux mille vingt six c'est normal mu dem ba deux mille vingt bu jeexee ñu commencé garanti bu bees yéen waxu leen Sénégalais yi lu tax ngeen tayle réew bi ba deux mille vingt six te tegu leen ko fenn. ndax élection 2024 da doon am mais 2035 sax leb ngeen ko li ngeen leb fii ci ay det fii léegi 10 ans 20 ans fay bi du jeex parce que à chaque fois intérêt yi day yokku wax nga dëgg Zahra Diallo bu doon man la duma ko bàyyi mu dem ndaxte da ngay bàyyi mu dem koo xamante ne li muy wax ak yow da koy def waaye suturaal ko defaral ko ba mu baax lalal ko tapi mu génn ne tër daw ci daw yi njëkk ya xamoon na ni bu fi yeewu waatoon benn jour ba askan bi yëg lii mu def këram lañ koy fekk mu dem ba egg ne naay mu ngi yónnee ay appel téléphonique naan remobilisez-vous <laughs> ñu ngi lay xaar yow de xaw ma kan moo xamul Sénégalais yi mais yow xam nga Sénégalais yi ndax président Macky Sall yow loo deful ci askan ci àdduna bii pour que bañ a génn réew mi pour bañ a joxe nguur gi amul te jóge nga fi. barki démb rek pour reporter ces élections là il a fallu que nga reylu ñeenti nit mais loolu fàtte xeju fi loolu barki démb la le trois bi passé bi ngay bi ngay reporter les élections bi ngay reporter les élections rek ñeenti xale gaañu nañu fii loolu kese waroon na mën a tax yéen ngeen jël idda muuru def bëj teg le au moins juróom benn weer ngeen may seen bopp tuuti jàmm ni defu leen ko ngeen ne da ngeen di opposé wu loolu lañ leen di ñaanal loolu lañ leen di ñaanal mais da ngeen di opposé wu ñun ñoo fi nekk li ñuy laaj ngeen xool ñu bu baax ñun ñii ñoo fi nekk xam leen loolu ñun ñi fi nekkoon ñoo fi nekk ba tey kenn ci ñun bougé wu li nekkoon ci dënn yi moo fi ne ba tey suñu bëgg senegaal sunu sunu yenu Sénégal sunu taxaw pour protéger sunu réew moo fi ne ba tey xam leen loolu bu ngeen ñu yabee rek élection daa ñëwul wala ngeen di ko tay taylu xam ngeen ñu bu baax xam ngeen ñu ba bu baax yéen xam ngeen ni yéen ba ngeen yoree nguur yor seen kaso yor seen procureur yor seen mandat d'arrêt yor seen ay milice boobu lañ leen ragalul du tey gii lañ leen di ragal yéen askan bi ragalu leen boobu ba ngeen koy jël di ko tëj yor seen ay milice ñu yëg ci ay pick-up ngeen ñu dóor ay lacrymogène ñu ragaluñ leen boobu lu tax ñu leen di ragal tey mu foog ni ba mu ngeen foog ni yéen yow am na lu mën a changer on ira jusqu'au bout Moustapha Seck c'est une exigence qu'on demande dañoo on demande qu'on aille jusqu'au bout avec ces régimes nañu leen auditer te ñi na ñu ko situé ku fi def nañu rëkk sa ndigg teg la ci yoonu sans vengeance sans poursuite sans quoi que ce soit mais nañ ko teg ci yoon parce que nag de bi ñuy wax lu ne wax ngeen ñu ko saaga ngeen ñu sosal ngeen ñu tam ngeen ñu dëmm dóor ngeen ñu rey ngeen ñu exilé ngeen ñu lu ne def ngeen ñu ko dañuy opposé wu rek jàkkaarloo ngeen te nag ñun lii ma fi wax lépp duñ leen ko def lii fi wax yëpp duñ leen ko def ndaxte boobu ba léegi yéen a ngi wax boobu ba léegi a ngi wax mais xam ngeen ni kon justice bi fi nekkoon dañ cee tegoon loxo justice bi nga xamante ne ku waxoon balaa ngaa wàccee ñu woola la convoqué la boobu ba léegi nag ngeen ngàbb seen ay émission gis naa ay site internet carrément ay nit ñu toog di def accusation ci ay nit. comme si du même justice bi fi doon jàpp nit ñi pour diffamation moom moo moo fi nekk ba tey wala dafa changé kon am na lu changé nangu ngeen ko yéen ngi yuuxu naan dara changé wul de mais am na lu changé de ba ngeen mën a yeewu suba ba ngoon di wax lu leen neex lu leen neex ngeen di ko wax te dara du leen ci fekk donc y a quelque chose qui a changé loolu kese jar naa fettu jar naa sant yàlla ñun bu fekkente ne sunu sunu sunu li ñu def nii changement de de nguur gi tax na rek. ku mën toog di wax en toute indépendance di wax lu kon déjà dañuy sant yàlla dañuy sant yàlla dañuy xam ne ñun on s'est battu au moins pour de la liberté parce que là vous êtes libre de parler et nag on parce que ci askan wi la ñu te dañoo subir lii ngeen fi doxal on va auditer sans vengeance parce que c'est pour le peuple bu fekkee loolu moo tax ngeen di tiit loolu moo tax ngeen di ragal di ngeen xam kii kenn iñaane wu fi kenn def naa benn émission suba na ngeen ko seetaan Sene People di ngeen comprendre fii kenn iñaane fi kenn kenn soxarewul kenn ku nekk amal amali milliard mais dañu ne suñu suuf si moomu leen ko man moomu ko sénégalais ñoo ko bokk de quel droit ngeen ko war a séddoowee ku ne am cee hectare hectare fu ngeen ko teg loolu ngeen foog ne dañ leen koy bàyyee noonu parce que def ngeen ci ay titre foncier amul titre foncier bu mën a tax ngeen dilapider l'avenir de plusieurs générations rek boo ngeen toog ngeen noppalu foofu nag lay ñëw tëjee dëgg la opposition bi dañuy yàkkamti euh, parce que tey ñenn rek ñoo légitime pour wax ba wax bi am solo mooy ñi nga xam ni dañoo xeexoon ba fal projet bi mais ñi contrôle projet bi ñooñu ils sont pas légitimes parce que ñooñu ils ont été sanctionnés par le peuple peuple bi nee na bëgguma donc ñooñu amuñu légitimité ñi am légitimité wax mooy ñi nga xam ni ñoom la askan wi ñoom ñoom ñoo xeexoon joxe seen responsabilité ba tey askan wi fal leen ñooñu ñoo am légitimité wax ñooñu tey bu ci amee ko am lu wax dara peut-être sénégalais mën nañ ne ah kii ci biir la nekkoon génn na wax lii te ñooñu gëm naa ne ay patriotes lañ ñun ñëpp ay sénégalais lañ yu bëgg yu seen réew yu nga xam ni kenn su ñun xeexul woon pour que tey nga taxaw di xeex ak nit ak di ay poste wala ay responsabilité non non kenn taxawul woon ci ñun xeex ndax loolu ndax bu doon poste wala responsabilité mi kon ñu ñàkk jom jëm jëli ji ko ci président Macky Sall moom mi nga xamante ne ku transhumé woon mu jox la poste. moom mi nga xamante ni ku jóge woon ci opposition bi mu jox la poste jox la ay ndombal tànk jox la alal jox la leneen bu doon ay post moo tax ñi fi xeex tey taxawoon ñu xeex kon ñooñu kon ñooñu du ñu xaar ba ex fii dañuy dem jëli post yi après tey ñu def comme ñu bëri ñu bëri lu ñu def transhumé changé ñëw fii donc loolu taxoon nit ñi xeexoon li taxoon nit ñi xeexoon mu ngi fi ba tey mooy pour le peuple pour la justice pour l'avenir de nos enfants te loolu dara du ci bouger dara du ci changer te ñi nga xamante ne ñoom ñoo xeexoon ba am légitimité wax ñooñu kenn ku nekk ci ñoom xam nga ni boo amee lu la metti tamit mais foo koy teg dafa teel dafa teel te loolu conseil la il faut que ñu ñu ñu ñu ñu ñu patient il faut ñu xam ne ñun ñëpp dañu bëgg mu baax ñun ñëpp dañu bëgg mu jub ñun ñëpp dañu bëgg ñu jubbanti mais il faut du temps ñu xam ni dara xëy rek sotti parce que yàqu-yàqu yi dafa bari ñun ñoo ko wax te loolu mooy dëgg ñi fi jóge dañoo yàq réew mi dañoo caxa-caxa ci alalu réew mi ba ci napp gi ñu jël licence yi jaay ko joxe ko ba suñuy doom amatuñu jën ba mool yépp génn ci defes tefes yi bar ñi rufis kenn desul jël ay gaal obligé dem immigration ñi des ci àll bi ñi des ci géej gi sunu suñu frère Papito Kara duñ ko fàtte ba faw duñ ko fàtte ba faw ndax lu ñu fàtte xeju fii parce que démb rek la papaam dañ fekk ji ko fàtte xeju fii loolu yëpp kenn mënu ko defar ci benn temps bu ndaw il faut ñu jël temps defaraat parce que li fi yàqu dafa bëri il faut ñu am patience il faut ñu am persévérance te nag ñun on est patient parce que ay nit ñu xeex douze ans ñun on est patient on est très patient même ñi nga xam ne ñu ngi bind ay mots di insulter mais tàyyi leen ay nit ñu ngeen saaga ñu xeex leen duma leen ba jël réew mi teg ko ci seen loxo kooku ñooñu est-ce que ay saaga mënati na ci ñoom dara ñu dañoo tul léegi ay saaga dañoo tul ay saaga parce que xam nga lu ñu xam ni on a vengé nos morts da ngeen leen rayoon pour ñu bañ a jot ci nguur gi jot nañu ci nguur gi loolu mooy bàcc yi da ngeen ñëw tëjoon pour ñu bañ a jot ci nguur gi jot nañu ci nguur gi loolu mooy bàcc yi da ngeen ñu sonaloon toroxal ñu torturer ñu pour ñu bañ jot ci nguur gi jot nañu ci nguur gi dinañ ko jubal dinañ ko jubbanti ñun nag ñooy am patience ou persévérance bu ëpp bi ñu amoon bay jot ci nguur gi pour xam ni ne bu baaxee ñu ñëpp la baaxal bu baaxee ñun ñëpp la baaxal te dafay baax nag ci kattanu suñu borom dafay baax incha allah dañuy am réussite ndax lu tax ñuy am réussite ndax askanu Sénégal moo mérité ñu am réussite ku ñu yéenewul réussite rek danga koo yéenewul sénégalais yi waaw te ñun nag gëm nañu ni sénégalais yi li ñu daj ba am victoire bi dañuy am réussite parce que li ñu bëgg moom la ñuy dox moom la ñuy moom la ñuy la ñuy jubal moom la ñuy jubbanti te il faut ngeen xam ko il faut ngeen xam loolu ñun ñëpp ñu xam ko sénégalais yi xam ko sénégalais yi xam ne dañu bëgg a jaxasi seen xel ñun xam nañ ni sax sénégalais yi loo yëngalu leen ndaxte sénégalais yi xiifuñu ay ceeb xiifuñu uniquement pour xëy suba ba ngoon di lekk mburu ak ceeb di yokk seen diabète dañu bëgg une vie meilleure pour leur avenir et l'avenir de leurs enfants dañu bëgg une justice équitable bu ñu amee problème dem ci yoon yoon yemale leen ak borom ku am alal dañu bëgg bu ñu feebaree dem faju dañu bëgg bu ñu xëyee kenn ku nekk ci ñoom li ngay liggéey nga am ci teraanga loolu la Sénégalais yi bëgg te loolu dafay am ñenn ñi nga xamante ne nag damaa jàpp ni dañoo ñàkk jom parce que ñàkk jom weesuwul nga toog ci nguur 12 ans di yokk ceeb. tey nga taxaw naan dañuy xaar ngeen ñi ceeb ci benn weer comme si sénégalais yi ceeb mooy seen mooy seen objectif mooy seen ambition sénégalais seen ambition ëpp na njëgu ceeb ëpp na njëgu diwlin sénégalais yi li ñu bëgg mooy suuf si ngeen sàcc caxat-caxate ko ñu nangu ko kër yi ngeen sàcc ñu nangu ko spéculation foncière bi ñu wàccee ko parce que nag sàcc suuf si moo tax ngeen jël seen ay milliards détourné ay milliards yoo xamante ne blanchiment d'argent la tabax ci ay kër tabax ci ay appartement yokku prix bi ba ci kaw pour mën a enrichir loolu dañ koy wàccee baromètre ba ci suuf Sénégalais yëpp mën a am appartement ku ne mën a fay sa luwaay looloo tax ñuy xeex looloo tax Sénégalais yi di xeex te loolu la ñuy def nag bu ñu paree ci foncier bi li ngeen fi am lépp dinañ ko répertorier lu tax ngeen di tabax ay gratte-ciel te du ngeen fayee impôt tey rek ngeen dee. te président état fiscaliste di ngeen fay impôt ba sonn ñu doon kër yóbbu ku ne ci yéen pare fay que am kër da ngay fay impôt munoo am kër di fay ay di encaisser ay loyers yi rek te doo fay impôt parce que tu es dans le dans le système di négocier di dem déedéet da ngeen di fay impôt parce que impôt yooyu ci dañuy jàngal suñu doomi école impôt yooyu ci dañuy defaree suñu hôpitaux yi da ngeen di fay impôt ku bëgg amay milliards bëgg amay kër bëgg amay immeuble na nga fay impôt ñun amuñu problème ah soxla soxorewuñu kenn ku nekk amal say kër mais dañu ne on a droit à avoir des lois loyers modérés dañ leen di bàyyi ngeen jël suñu suuf ñoo ko moom ngeen accaparé ko ñu ne déet na waaye jël suñu alal détourné ko tabaxee ko suñu suuf ji nga xam ne ñoo ko moom wëlbatiku diñu ko luwee lu cher <laughs> ñun ñooy fay loolu mënul continuer loolu dañ koy jubbanti te xam ngeen ni seen kaw leen jëm. ndax fii genn wàll ñi fi nekk ñëpp ay nekk ci immobilier bi ce sont des anciens politiques am na nag ay hommes d'affaires mais hommes d'affaires yi da ngeen di fay impôt ndax ci lañuy jàngal suñu doom yi ci la ñu war a fay suñu ay euh, suñu wàññi suñu dund suñu dund bi bu ñu wóolu population foncière dañ koy wàccee parce que c'est hors de prix nekk Sénégal on te demande de payer trois mille euros un appartement Sénégal li ñuy fay loyer mais ñi dëkk Paris wala dëkk ko Genève duñ ko fay kenn mësul gis loolu léegi loyer yi ay 1000 la boo xamante ne salaire bi nit ñi fayeeku ñu sax 300 euros loolu mënul nekk loolu mënul nekk parce que ce sont des foyers de blanchiment d'argent il faut que ça cesse bu fekkente ne loolu moo tax ngeen ne da ngeen di taxaw. yaakaarloog ñun acca na ci daal da ngeen xam ni sénégalais yi indi changement bii ngeen xam ne mosu leen koo bëgg depuis 1960 ñu ngi wax rupture ñu ngi wax changement système ngeen di bañ di résister résistance boobu ngeen da yàgg résister moom moo daanu da ngeen xam ne le peuple est là et le peuple sera prêt loolu il ngeen xam ko merci beaucoup Momar Seck merci beaucoup am na si ñoo xamante ne wax bu yàqu la ñuy wax bu yàqu la ñuy wax xam naa ni ñun fan yi suñu noppalu bi noppalu woon sax yaa naan ak kii ça faisait plaisir dama ni dem leen ngeen tëddi nelaw ngeen muñ ngeen gën a yaatal seen dënn yi parce que nag bu ngeen yaakaaree ni citoyen Maimouna Bousso sentinelle de son pays sentinelle de cette démocratie bu nga xam ne douze ans ma di ko xeex pour am ko tey ñu am ci démocratie boobu bu ngeen yaakaaree ni euh, am na ci àdduna ñàkk nomination bu mën a tax sunu vie dara changé si c'est parce que xamu leen dem leen ngeen laaj ko seen papa Macky Sall dem leen ngeen laaj ko ñu àndoon ak moom dem leen ngeen laaj ko ñi ñu joteloon xeex ak ñoom ci sunu dund ndax ñun bu ñu nangu woon perte tuuti ci suñu dignité li ñu ñàkk lépp suñu àdduna dinañ ko ñàkk ñun on ne marchande pas suñu dignité ndax suñu dignité moom moo ëpp suñu ay jëmm ndax dañ ko fiy bàyyi dañu koy nettalee te man dama ci bare moroom man ak patriote yeeg citoyen sénégalais ñoo bokk loolu mun nañu am lu ñu naqari mun nañu am lu ñu lu ñu lu ñu chagriné am lu ñu ko gisee neneen mais toujours sunu patriotisme ak sunu bëgg Sénégal ak sunu dignité day jël le dessus parce que foofu lañu sénégalais di xaaree foofu lañu sunu juddu di xaaree foofu lañu sunu yar di xaaree ndaxte nag sénégalais léegi dañoo xàmmee dañu xam ñuy def semblant ak ñu deful semblant te ñun dama ni dañ leen na duma duma yu leer naññ te sénégalais bu ci nekk tey. bu bu bu nguur gi demoon jëli sax ay somalien jox leen jox leen jox leen poste euh, état yi ñu doxal te nga jubal état bi jubal jubbanti sénégalais yëpp am nañ ndam parce que c'est pour ça que les sénégalais ont voté c'est pour ça que les sénégalais ont voté et ça ça va pas changer tant que les problèmes des sénégalais sont là on vous demandera des comptes parce que da ngeen nekk responsable de ces problèmes là bu ngeen génnee rek ñu génn jàkkaarloo yéen na ngeen xam loolu dëgg la nag ñun ñoo leen wax nekkatuñu opposition moo tax ñu belli ndaxte dañoo falu te nag dañoo am droit ñu noppalu dañoo am droit ñu dallu dañoo jàppoon rek yéen da ngeen civilisé te buñ doon génn dina am yeneen problème yu ñu génnee yu dul ay problème Macky Sall def na nii waa APR ña ngay xataraayu commencé di sos di manipuler yooyu noonu nga xam ne ñun ñun niis nañ yooyu ak itam scandale yi fi am nga xam ne heure bu ñu yeewoo suñu ay gémmiñ suñuy loxo dar suñu gémmiñ ñu gis ñu ngeen di caxat-caxatee suñu suuf si ñu di ko yëg pare guñu yéen ngeen di ñu agressé de façon sonore di ñu agressé di ñu tympaniser du ñu leen may loon ñi sax répit vacances yu mat weer sax mayu leen ñu ko ci nit ñu xeex douze ans quand même ku xeex douze ans ñu war laa mën a may sax trois mois wala six mois nga reposé wu mais déedéet ngeen di génn di xataraayu ñu leen di jàpp sàcc yi ñu ngi nii rondalkat yaa ngi ne ñu leen di wër eggaguñu ci yéen kenn convoqué wu leen kenn woowu leen ngeen di ngeen di xataraayu les gens vont se laisser faire il a deux choses nag bu leen ko jaawale il y a l'état il y a incarné par le président de la république avec euh, le premier ministre les membres du gouvernement euh, les autres autorités. Et a nous, nous citoyens. état xëy na moom mënatul nekk di leen tontu parce que état dafa war a œuvrer jox des propositions liggéey donc ça on est d'accord mais dama ni ñun ñu ngi fi nekkoon ba tey bougé wuñu te c'est pas parce que nag am amuñu poste moo tax ñu am jot wala dañuy am poste suba moo tax dañuy noppi no nopp leen parce que ñun dañuy suñu liggéey di liggéey. parce que pendant douze ans mosu leen xam lu ñuy liggéey mosu leen koo laaj mosu ñu leen mosu leen ñu fekk fenn itam ñii ci benn bureau ñi ci benn agence ñii ci benn société ñuy demander benn service la preuve mosuñoo ñaan benn terrain mosuñoo saraxu bokkuñ ci benn attribution ñu ngi koy sante suñu borom lu ñu am ñoo ko utal suñu bopp def rek ba ba survivre di dund ba tey loolu la ñuy continuer di ko def loolu la ñuy di ko def il faut loolu ngeen xam ko donc live bëgg moom mu gudd gudd gudd trop bien sûr dina am yeneen live bëggee wuñ ko woon noonu parce que dañoo jàppoon ni euh, duma yuñ duma metti na te pour ñoom dañ leen bëggoon may tuuti réppi rek ñu nekk ci jàmm mais apparemment euh, bëggee wuñ ko noonu on voit que euh, fan yi manipulation yi bare na dans de tous les bords te loolu mënul nekk donc il faut que ñu garder ñu rang xam nga ñun foog naa ni ay nit ñu xeex ba créé brigade focus dénk ko Alimata Sow ak ñoñoom d'ailleurs maa ngeen leen koy nuy moom ñeneen xam ngeen ni kon ñun ñi euh, tey euh, il faut faudrait que ñu jël ci lii exemple Cheikh il faut qu'on fasse ça il faut qu'on comprenne que suñu ay jëmm suñu ay problème suñu ay situations euh, lu mu mun ci metti metti daf te gënoon metti te li fi metti woon dootul metti waat ba egg foofu déedéet lu ñu xeex xeex garde à vue moom dinañu ko gëj a dund lu ñu xeex xeex prison Rebeuss bee dinañ fa dégg lu ñu xeex xeex dama ni ay lacrymogène ay milice ñuy dóor ay yeneen ak yeneen du amati kon nag tey la xeex gën a yomb kon ngeen war ngeen xam ne ñun suñu xeexul ñun la ñoo ko bëggul ñoo bëggul xeex parce que ñun ñoo jàpp ni euh, euh, Sénégal mérite na ñu may ko tuuti battement ak jàmm mais foog naa ne ñun mën nañ xeex danañ xeex de <laughs> ñun xale yi dañoo mën xeex ba nga xam ne xeex rek la ñuy def sax xamuñu leneen lu dul xeex maintenant on voit des gens yoo xam ne peut-être qui veulent se rendre ñu ngi woon fii depuis euh, années yëpp passé il des années euh, te dañoo am ne zigoon dañoo noppi woon suñu woon ñeme wax tey nee nañu dañuy génne ay dossiers ay révélation ci euh, président ci premier ministre ci des membres du gouvernement comme si c'est membre du gouvernement ñu ngi door a juddu tey li ngeen di waxal président di ko waxal ñeneen ak ñeneen yéen loolu xamu leen ko woon avant tey ngeen ko xam ay ba di donc yéen ut leen tuuti crédibilité ni da ngay crédibilité parce que nit mënul opposé ak yow 12 ans nga sosal ko inventel ko lu ne tey nga yeewu mu daan la nga génnee ay dossier mais dossiers yooyu xanaa kay mu gënoon yomb bu fekkente ne amoon nga ko du tax waxoo ko sunu président Bassirou Diomaye bi ngeen koy jàpp dama fàttali damay fàttali Sénégalais yi ci benn post Facebook post Facebook bu ndaw moom ngeen ko moom ngeen ko jàppe woon tëj ko ci kaso presque un an tey ngeen génn ne am ngeen ay dossier am mais fan ngeen nekkoon fan ngeen nekkoon dossier yi lu sax lu sax génnewu leen ko woon boobu mais crédible leen li ngeen di wax amul bopp amul génn Sénégal yi ngeen di waxal xam ne ni li ngeen di wax amul bopp amul génn ndaxte bu ngeen amoon dara ci ñoom du ngeen leen toppee ay wax ay waxi post Facebook du ngeen dem ba di leen sosal di leen jiiñ di tuumaal ba ay doom ay xale di ci dee li ngeen di wax ni yëpp ci ñoom ci ngeen ko amoon génnee ngeen ko depuis boobu parce que yéen a nekkoon ci état bi nekk des super pouvoir am les renseignements généraux kon li ngeen xam lu tax waxu leen ko boobu da ngeen bëgg ko leen jàpp diffamation seen yaram day xasan kaso wala da ngeen bëgg inauguré apparemment dafa mel dafa am benn course a la première arrestation ku nekk da ngay bëgg nekk yow la ñu njëkk a jàpp luy seen problème loolu moom ndam la moom ñu njëkk a jàpp la moom. ndax wax ju bare wala wax ju débordé loolu ndam lay doon parce que bi ñu commencé wax ba lii kenn woowu leen mais nag def leen attention de parce que ñun duñ leen jàpp duñ leen jàpp te xam nga président Macky Sall moom moo doon jàppe di mais ñun fii kuñ fi jàpp justice moo la jàpp bis ku leen justice jàppee nag yéen ak justice la voilà donc foofu daal <laughs> laa bëggoon laa bëggoon waxee tey euh, perspective yi ci des nag mooy. Euh, bien sûr buñ ko mënoon dinañu def toujours toujours ay live pour di continuer di waxtaan euh, parce que jàpp naa ni jarno na euh, incha allah bu ko laajee rek dootuñu bàyyi en tout cas mu wéet mais na ngeen xam ne jamono ji wax yombul wax yombul surtout ci figure yu mel comme man ak suma ay morom dañuy bëgg mettre à l'aise ñi nga xam ni dañoo jàppoon ni benn bi ñii dañ leen duma ñeneen ñi dañu ànd ak ñoom di liggéey te xam nañu cofeel bi sénégalais yi am ci ñun ba tax na bu ñu génnee nit ñi dañuy bëgg ah mais dañ bëgg ngeen am post fan ngeen nekk donc duñu bëgg génn yàqkat yi itam dañ leen di sóoraale parce que ñoom dañuy bëgg jaxase nit ñi seen biir mënuñu ko gaa mënuñu ko gaa mais dañ koy jéem jaxase mooy bu ñu gisulee ne ah dañoo mer moo tax gisuñu leen mais même bu ñu génnee bi waxuñu ne ah non dañuy yëglu bëgg poste moo tax ñu génn donc kenn mënta daw coow li kenn mënta mucc kenn mënta mucc parce que loolu rek moom moo fi am mais na ngeen xam ni rek yéene bu ngeen am ci ñun am nañu yéene bu ëpp loolu ci yéen yéene bu ngeen am ci ñun xam nañ ni yéene leen ñu ko ndax bëgg ñu am teraanga parce que xam ngeen ni euh, loolu taxuñu daw xam ngeen ni yéene leen ñu ko ndax euh, bëgg ñu am suñu téye ndax xam ngeen ni suñu borom seetaanuñu mais xëy na ñu ko yéene rek parce que da ngeen bëgg ñu jël ay responsabilité mais na ngeen xam ni loolu dara jotewu ko ak sunu engagement dara jotewu ko ak sunu engagement parce que ñun ay la yéwén askan wi fekk mu ngi fi ñu war koo taxawu war ko waxal war ko soutenir ñun suñu combat tey la gën a euh, tey la gën a firndeel tey la gën a taxaw tey la gën a tey la gën a la gën a euh, tey la gën a nekk à l'ordre du jour li ci des nag mooy euh, ànd bi ànd coalition ànd la woon ànd coalition ànd bi tam dafa amoon ay jamono mu metti woon parce que dafa am ñu persécuté woon suñu biir di leen tëj dissoudre seen parti sonal leen il fallait que ñu sotal leen amul ci benn regret au contraire bu doon tey la dañuy defaat la même chose dañuy defaat la même chose mais xëy na ku nekk ci ñun tamit da ngay jéem a retrouver wu ak sa famille ak sa liggéey ak sa organisation pour jéem a defaruwaat pour rek gën a mën a am doole boo xeexalee askan bi boo taxawalee askan wi donc loolu képp mooy tax de temps en temps ñuy jël ay petits recul comme ça mais du leneen moo ko moo ko mën a tax suñu jëlee recul nag gis ni mbóot yi ñu ngi génn dañuy yëkkati suñu pompe rek parce que ñun pomp mbóot bi ñu yoroon ba pulvériser leen ba tey pompe boobu mu ngi fi pompe mbóot bi du lenn du du suñu ay dëgg yu ñu leen di bàcc suñu pertinence bu ñu leen di tegal dañuy wax du ngeen ko didi parce que foncier bi yéen ko caxat-caxatee bor bi yéen a ko jël yéen a jël Sénégal endetté ko budget bi voté nañ ko ba pare waa APR yii di wax bu ñu dematee ci plateau di wax naan nañu def lii nañu def lii da ngeen leen di laaj est-ce que ñoom budget 2024 dañ koo téye ba léegi wala dañ koo voté ba pare budget bi voté nañ ko secteur bu nekk xam nañu lan lañ fa war a yóbbu ak lan lañ fa war a def président kay mooy xool nan la ko réajuster en fonction des priorités mais boo moytuwul sax genn wàllu budget bi sax roñ nañ ko boo moytuwul genn wàllu budget bi sax roñ nañ ko parce que ñu saña roñ ba roñ ay hectares suuf suuf nga xamante ne buñ la ci daggaloon deux mètres yan la ko ñaanuma ko yàlla bis boo fi jógee ëpp na la diis na gann sa kaw nga yor ci ay ay hectares ñu ne déet na waay nga yor sa làmmiñ di wax ñenn ñi naan wii am na ku ma dégg mu naan waaw bi ma daggee fii ak bi ma fàqee fee ne ko yaa ñàkk jom suuf joo xamante ne moom moo ko askanu Sénégal moo ko moom ñu jël jox la ko ngay lotee di dagg ak di fàq mais am na yoo xamante ne décence sax moo ko mayul nit ki vous devez vous faire tout petit ngeen régler am na ñoo xam ne nag ñun bu ñu génnee di wax sax ñu ne eh, ñoom di soo gisee ñuy wax dañuy xalaat seen seen terrain wala seen suuf lañ bëgg ñu fay leen dama ni problème boobu dama bëgg wax leen ko sénégalais ku leen ko waxati ne leen ko soxna a Bousso kenn mënu koo fay këram kenn amul état wala doomu aadama bu ko mën a fay këram ndaxte kër gi mu ñàkk kër goo dugg quinze ans kër goo dund quinze ans toog presque six ans ren xaw ma sept ans dëkkatoo ci foog naa ni loolu boo amoon boo amoon blessure cicatrisée na kenn mënu laa fay kër ku la joxoon téeméeri kër mënu laa rembourser kër googu c'est pas possible ku la joxoon ay milliards mënu laa rembourser kër googu tontu len leen loolu tontu leen leen loolu ku leen wax loolu tontu leen leen loolu ne leen leen dem leen ngeen tëdd ngeen nelaw ne leen leen may mun a busa bu doon dafa soxla ku ko fay këram day dem seeti kii dagg ba dagg armee yi maye ko dagg ba dagg aéroport bi maye ko dagg ba dagg ay toolu jàmbur maye ko day dem ci kooku mu jox ko ko du toog di xaar ba fii ba ngeen séddoowee suuf yëpp muy wax <laughs> buñ bu ngeen leen waxee loolu ba pare nag ngeen ne leen te teg ci même na bu sa suuf si muy xeex doon doon ko xeex moo ko jënd kenn mayu ko ko kenn attribué ko ko kenn toogul ci ay bureau jox ko ko contrairement ñi mu doon xeexal nga xamante ne ñoom ci état lañ ko jëlee des seen ay nëpp dëpp moom citoyenne sénégalaise bi dafa daan dooleen te loolu kese la xam daan dooleem boobu moom lay def ba tey loolu rek pour pour pour ngeen noppalu pour ngeen noppalu ngeen xam ni ñun ba nekkee ci opposition bi ngeen ñu mënul teg ay tuuma yu ñu teree yu ñu teree taxaw du tey jii ngeen di génnee tuuma yooyu mënatul nekk kenn mënatu ko ñun nag ñun ñëpp ñun ñii mais ak suñu njiit jiite réew meeg ñu ne ci gouvernement bi ñooñu boobu ngeen leen tegul tuuma bi yu leen mën a tere sénégalais yi wóolu leen kon seen tuuma yooyu xam ngeen ni tey c'est jarul jarul sax ngeen di ko wax wuti leen beneen argument indi leen ay proposition bu ñu leen waxee dañuy def nangam ci mbay mi indi leen ay proposition ngeen nañu li ngeen wax mënta nekk wala nii la gënee buñ leen waxee dañuy def lii ci euh, ci accord de pêche yi wax leen ñu lii lii mooy conséquences yi buñ leen waxee lii lañ bëgg def ci tel domaine wax leen ni non lii ak lii dañ ko gisee indi leen benn opposition boo xamante ne bu civilisé parce que ñun opposition bu civilisé leen nar a opposé wu ak yéen ñun duñu opposé wu ak yéen ci ay calomnie duñ leen topp amuñ seen jot bu fekkente ne da ngeen foog ne xëy di wax lu rëy dugg ci télé yi di ko wax ñu jàpp leen vic ngeen victimiser wu mooy tax ngeen bañ a rendre compte ci foncier ba ci li ngeen def noppal leen seen bopp noppal leen seen donc moom laa amoon euh, lu may wax di leen demander ngeen suivre ngeen suivre euh, émission suba bi incha allah euh, sur Sene People xaw ma heure de diffusion bi mais dinaa ko partager ci suma page incha incha allah donc di leen di leen nuyu di leen nuyu di leen di leen tàggu bugguma live bi gudd gudd ba trop di wax ne rek nañu gën a ñaan nañu gën a farlu. gën a ñaanal euh, ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ci réew mi euh, ñu dénk leen ay tànk ñu ñaanal leen yàlla may leen jàmm di wax ne nag ñun ñoo nekk euh, la force de ce de ce projet et de cette construction ñun ñoo mën a nekk aussi la faiblesse donc yàlla nañu yàlla dimbali ba ñu bañ a doon une faiblesse yàlla nañu yàlla dimbali ba ñu nekk juste force continuer di ko di ko di ko doon ba faw ñu góorgóorlu ci loolu bu baax a baax ñu góor góorgóorlu xam ni suñu ay xëccoo sax suñu biir mën naa tax euh, euh, koo xamante ne àndul ak ñun wala noonu profitoo ci pour indi ay ay divergence ak ay discorde donc ñu gën a góorgóorlu parce que euh, pouvoir yombul benn pouvoir yombul pouvoir bi nga am sa kër sax yombul attentement pouvoir gouverner tout un pays yombul souvent Euh, malgré que bokkuñu Pastef dañu yor suñu mouvement yi bokk muy force citoyenne mais ñi nga xam ne mooy parti bi nga xam ne moo porté projet bi muy parti Pastef suñuy allié lañu boo amee ay querelle yu ci am mën naa indi ay divergence mën naa fragiliser euh, projet bi malgré que projet bi nekkatul projet parti projet askanu Sénégal la voilà sénégalais yi ñoom ñoo ñoom ñoom moom projet bi ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko téel seen bopp mais ñu gën góor góorlu rek ñu gën góor góorgóorlu xam ni bu ay nit euh, amul lu ñu séddalee xëccoo du metti mais lépp fu ñu am rek dina am ku ñu xeeb wàllam wala ku jotul wala ku jàpp ni dafa am ku jot te moom moo ko gën a mérité mais rek di tëjee pour wax ne malgré yéene ji ngeen am ci ñun yëpp ñun ñu ngi ñaanal ñëpp ñi nga xam ne fal nañ leen parce que ñi ñu fi fal jàpp nañ ni kenn ku nekk ci ñoom da am la confiance du président de la république ñi ci fal. kenn ku nekk ci ñoom dangaa am mérite ci xeex bi fi nga ci toll am na ñoo xam ne xëy na jàpp nañ ne xàmmee wuñ leen mais quand ñoom ñu am la confiance de ki nga xam ne moo leen far rek nañ leen ñaanal parce que nag mission bi ñu leen jox du mission bu leen personnel du mission bu ñuy jël si yóbbu ko seen kër mission la boo xam dañu ko war a dañu war a dérouler li nga xam ne mooy suñu combat ak suñu ak suñu projet bii ñu moom donc bu ñu réussir ñun la ñu réussir bu ñu échoué tamit ñun dañuy comptable de ces de ces échecs là même su fekkente ne du du de façon directe mais en tout cas dañuy comptable de ça donc seen réussite képp moom la ñu mën a ñaan moom la ñu mën a dooleel moom la ñu mën a dëgëral donc loolu daal moom laay moom laay tëjee di leen ko di leen ko gën a ñaaxaatee ñu gën a góor góorgóorlu gën a joxante loxo gën a bàyyi xel ci suñu bopp xam ni nañu doon waxee ba ñu nekkee ci opposition euh, tey même démarche bi la ñu mën a am mais nañu xam ne tey yaay a des gens qui vont essayer de nous provoquer te ñu nekkatuñu ci état d'esprit boobu à un moment donné dañu doon xeex parce que dañu acculé woon dañu loon moo taxoon ñu am yenn yenn position yu dures yi moo taxoon ñu taxaw résister ñoom nag foog naa ni quand on dit résistance dafa fekk ñu am lu ñu la teg nit ki mën a goo résister te kenn tegagul la dara kenn yuuxoo guñ yow nga yow nga taxaw di xataraayu donc kooku dafa am lu muy nëbb ci ginnaawam donc kooku il faut pas ngeen jox ko euh, euh, force je vois beaucoup de gens qui se permettent di génn di wax yoo xam ni xam ngeen ni peut-être am nañu leneen lu ñu denc beneen agenda caché bu mu am bu ñu am bu ngeen leen euh, commencé ku wax ngeen tontu ko rek da ngeen leen di may benn aura boo xamante ne peut-être que amuñu ko woon sax avant ñu ñu toll fii Donc, il faut pas donner ça parce qu'il y a des gens qui pensent que il y a des places qui sont euh, qui libres. donc ñoom ñu bëgg a ñëw buruxlu ci ci ci place yooyu ni ngeen koy waxee moo buruxlu kon bu leen leen may ñu buruxlu ah. donc euh, am na yenn détails yoo xamante ne il faut les laisser de côté faut pas répondre faut pas amplifier ça il faut se dire que voilà euh, ku toog di wax ci yenn yi soo waxee kenn tontuwu la di nga jàll ci leneen parce que ñun nag on a dépassé les calomnies on a dépassé dépassé les accusations gratuites on a dépassé euh, yooyu yëpp stigmatisation yooyu yëpp jàllal passé nañ ko tey fi ñuy xaar mooy ci réussite mooy ci jàmm mooy ci salaam jàmm jooju heure bu ñu yeewoo xalaat ni président Macky Sall loxoom génnee nañ ko ci ndab bi te moom génneelu ko boppam ñun ñoo ko boddi sànni loolu rek sa suba boo yeewoo loolu rek ça mérite un sourire ça mérite benn applaudissement ku yeewu tàccul sa bopp defal sa sourire nga tàcc sa bopp balaa ngay jóg ci sa kaw laal ku yeewu santal suñu borom parce que amatuloo di taxaw di xalaat am na ñu lay xaar sa buntu kër di la jàpp am na leneen leneen maintenant dinañu continuer di waxtaan bu leen bu leen bu leen réer ci loolu surtout que man ak yéen dafa am relation déjà bu ci am mooy ngeen yaakaaree ñu toujours ci dëgg te loolu lañuy ñaan suñu borom mu kattanal ba dëgg fu mu féete même buy metti ñu di ko wax parce que loolu nag ngeen di xaar ci ñun loolu moo tax itam ngeen am ci ñun respect bi ngeen am ci ñun constance bi ñu am 12 ans yàlla bu suñu borom wàññi ci tarfatal ay ni yàlla nañ continuer di di di toll foofu donc euh, man maa ngi leen di di di jéggalu di leen bàyyi di leen jox dig daje très très très très bientôt incha allah dans d'autres lives on va essayer de voir comment on peut organiser ça incha allah merci beaucoup